léegi incha allah lépp loo xamante ne tukkee na ci euh, sortin boo xamante ne en tout cas dinañ ci gën a faram-fàccee gën ci gën ci mm-hmm. ñëw baax mais en tout cas euh, actuellement moom sortem ñun ñu ñu ko daan xaaree dinañ ko gën a xaaraat mm-hmm. parce que euh, ni ma ko waxee léegi ñaari casquette yu mu solo waaye tamit actuellement fi mbir yi toll la xam nga Macky tontu na fi réew mi toll waaw Macky tontu na démb waaw Macky tontu na démb euh, te Macky kenn la si ñi nga xam ne moom tuumaloon na ko fi. Mm-hmm. dañoo maquiller chiffres yi. Mm-hmm. Euh, Amadou Ba déggaguñ ko mu wax si nee ñu Amadou Ba aussi tamit. day waxaat tey waaw donc uh-huh. euh, demee ñi ngi xaar incha allah benn actualité boobu dina yëngatu. demee demee liggéey dina mbat incha waa dina dina dina bëri dinañ gis mm-hmm. bu ñoom ñaa ñëpp waxee. comme ñun waxkat yi <laughs> dinañ amati lu ñu commenté on espère que ne rek voilà. Euh, dinañ am continue bu gën a am solo. Euh, mais Moustapha actuellement euh, moment bi nga xamante ne la ñuy waxee moom la ñuy moom moo nekk daanaka li lëndam xelu nit ñi parce que gis nañ ne ñu ngi waajal li nga xamante ne moo di élection législative jàpp ko ci 17 novembre bi nga xamante ne moom la ñu dëgmal presque mën nañ ne ñëw na parce que ñu ngi ci mois d' octobre. li ci des presque un mois la wala un mois juste lay lay tollool euh, gis nañ sorti euh, gis nga Macky Sall itam génn na bañ ko bañ ba Macky ba Ousmane Sonko defee li nga xamante ne mooy gouvernement face à la presse ba léegi yàgg na mais mu toog ba moment bi doo a tontu Ousmane Sonko itam di wax li nga xamante ne moo di 22 bu buñ ca jógee Amadou Ba wax moment bi waaw xam bon bon moment bi moom yow xaaral ay yeneen sorte ak yeneen sorte parce que mhm. Amadou Ba tamit dafa nekk tête mhm. boo nekkee tête tuuma yu ni mel tegu sa kaw moom tamit ñi nga xaar mu weddi parce que ñooñu weddi rek nañu doo fi gis kenn ku génn ne. Mhm. li Sonko wax dëgg la. waaye damaa tiitoon wala damaa jaaxloon ñoom ñëpp ñi ngi xaar ñu génn weddi et eh, léegi nag après tout dépend ci weddi bi nga xamante noonu la ñuy weddee. façon weddi bi façon weddi bi parce que Macky Sall boo xoolee ni mu weddee Macky dafa weddi tegul dara sunu loxo. Mm-hmm. waaw maa ngi lu dégg nga di ko wax ce matin c'était très pertinent ni nga ko waxee tey yow laay toppandoo ni nga ko waxee noonu la amee Macky dafa weddi te tegul dara suñu loxo mm-hmm. waaw weddi na mais tegul dara suñu loxo parce que mm-hmm. boo weddee li ñu la tuumaal et puis était très évasif quoi dafa dafa dafa affaire rek dem waaw euh, li ñu ni ñu ko waxee loolu amul nangam ak nangam buñ gëmloo nit ñi mën nañoo avancer dëkk te duñu boor lépp te duñu lepp nangam ak nangam non débat bi foofu. ba pare nee na sax moom li mu fi def jarul woon débat loolu parce que ñii déficit bi mu doon wax 5 pour cent nee na ñu ngi ci mhm. te loolu amee boo xoolee am na ñu bëri ñoo xamante ne weddi nañ ko fi. Mhm. Mame Boye Diao nee dañu wax ci jëm ci manip chiffres yi ñu lu am la. Mhm. Arona Coumba Ndoffène Diouf wax abondé tamit dans ce sens nga gis ne Charles te avant moom mu koy wax Ousmane Sonko waxoon na ko nee leen seen chiffres yi ngeen yor ni baaxul te loolu bu ñu ko assemblée nationale la woon. Mhm. cest à dañu yàgg di foowee chiffres yi. yàgg na wax moom directeur de la solde la woon nee woon na mais dugal nañ ko si bopp ñëpp. dañ la doon nax. mais suñu budget du 7000 milliards. budget bi neen 5000 milliards et quelque la léegi dañuy jël emprunte yi dugal ko ci biir loo xam ne warul bokk ci budget bi ñu ñambaas ko ci pour taawi ko xam nga kon ñoom fooyee chiffre na ci ñoom. moo tax bu ñu fi ñëwee di ko weddee képp du du kenn parce que ñëpp xam nañu ne chiffres yi ñu yàgg joxe chiffres yi ñu fi yàgg wane lu ci ëpp dañ koy gonfler euh, pour au niveau international ñu mën gi leen gën di lebal di leen gën di ah, wóolu voilà liggéey ñi ngi am def loolu nag euh, moom la ñuy ñëw bëgg rompre ak moom euh, su ko defee mu doon loo xam ne euh, en tout cas man jàpp naa ne mooy li gën parce que FMI mission yi nga xamante ne ba ci bi fi jógee nii récemment rek da ngay gis ni en tout cas ñi ngi liggéey ak Sénégal nangu ko accompagner di ko encourager bi nga xam ne am na ci ñoom rafetlu nañ ko bu baax effectivement nangu na euh, rafetlu nañ transparence bi tamit di di encourager Sénégal ci mm-hmm. dynamique bi mu nekk nii ci audit yi mu nekk ci euh, façon bi nga xamante ne engagé na ko ci yaxanal dépense su dépense dëkk bi démb bi ma déggee El Malick ne euh, fan bu ñu bëggee voyager sax dañuy bind ñi war a dem daal di koy soumettre ñu doo ko valider ñu doog a départ te léegi délégation dañ ko wàññi bu baax a baax a baax. Ah, xam nga loolu nekk ci euh, dañu nekk ci yaxanal mais mais mais loolu c'est une bonne chose. Mm-hmm. ñëpp xam ko waaye tamit nit ñi bàyyi ci xel. Mm-hmm. parce que bu njëkk bala nga daan gis. man tey ji am na am na fi benn benn benn benn waay xam naa su ma waxoon direction bi ñëpp xam ko. Mm-hmm. ordre de mission yi ba mu ñëwee la ma fa fekk ci ordre de lu mu. ordre de mission yi fekk rek kenn xamul lu mu toll te loo ci li ci gën a garaaw amee. mooy yenn ordre de mission yi ay Dubaay lay dox yu kenn xamul te loo ci xamul ay ay soxna rek ñoo doon dem. <laughs> ñooñu dañ doon noosi. xam nga ami loolu am na fi moo tax ma ne DG am na ñooñu bu ñu gënoon wax ñëpp mu ci yàlla. li ma la wax ni lu am la. Mm-hmm. ñëw di xool ordre yi mais ordre yi ngay xool yu bëri ay dëkk yoo xamante ne dem te. yëpp Dubaay la ay ay dëkk yoo xamante ne lu ñu doon defee foofu. ay Eldorado la. waaw ay ay Eldorado te boo demee charge yooyu nga jël entreprise bee koy jël en charge. Mm-hmm. mais su fekkente ne léegi la nii boo bindee ne kii kat day doon ordre de mission yooyu nga am foo ko jaar mais xanaa di nga am kersa nag ne tey ji su ma ànd diw bu subaa nga àndaat ak di wutal ko ordre de mission mu jiitle ngeen ànd jiitle mu dem bitim réew ngeen dem fekkante fa ci alalu Sénégal. parce que entreprise bi moo koy fay te entreprise bi contribuable sénégalais bi lay fayee donc loolu lépp dund nañ ko fi. te am na si ñoo xamante ne xam nañ système boobu te surtout yenn xale jigéen yi nga xam te ñoo nekk ci milieu jet set bi xam nañ loolu bu baax a baax. Mhm. donc yooyu ay façon de faire la woon yoo xamante ne suñu xaalis fa la doon jaaree di yàqu. waaw yooyu yëpp nag euh, direction yi fii euh, euh, directeur yu bees yi. am na si ñoo xam ne boo déggante ak ñoom wala nga toog échanger ak ñoom da xam ne euh, vraiment ñi ngi daj lu méttee méttee méttee méttee parce que li ñu leen fi bàyyil ñenn laay wax parce que waxuma ñëpp am na si ñoo xamante ni leen fi bàyyi vraiment euh, am nañ euh, du pain sur la planche pour ñu relever ba fexe ba génn ci pante bi ñu nekk. Mm-hmm. voilà ñu daal di wéyali waxtaan waxtaan bi ba tey wax ci coowal Azer bi nga xamante ne daanaka semaine bi passée yëpp mu nekk actualité doxoon ci moom partenaire bi ak nga xamante ne moo di espagnol beeg représentant waaye euh, ki nga xam ne moo di Assane Fall nekk ingénieur dafa daal di porter plainte contre Azer ak nga xamante ne moo di AEPA EPC e di espagnol boobu nga xamante ne sax moo doon liggéey ak waa Azer ñooñu nga xamante ne la ñu daal fi tekk ñuy régler mbirum électrification rurale yooyu le ñoom nag la tax mu porté leen plainte moom Assane Fall moomu le nee na daal assez respecté wul li nga xamante ne moo di code de l'électricité loolee sax moo tax mu daal di leen porté plainte mu mel ni coowal ASER li euh, Moustapha mën nañ ne euh, léegi mu raw li nga xamante ne moo di coowal ONAS bi euh, doxoon ci diggante Cheikh Tidiane Dièye ak Cheikh Dièye Cheikh Dieng autant pour moi malheureusement dañuy jéem a indi coow foo xam ne coow amu fa. Uh-huh. parce que ingénieur boobu nga dégg dafa porter plainte muy uh-huh. wax ne façon bi ñu joxee marché bi la euh, moom la d'accordul dafa waroon appel d'offre nangam ak nangam man pour man plainte dëgg-dëgg bi xam nga fu mu war a jóge te defe naa sax dugal na ko mooy Jean Michel. Euh, moom directeur parce que moom li mu wax ni moom wax ni concerné wu Jean Michel de parce que Jean Michel ba muy xaat ba ñuy xaati marché bi fekk ko fekk ko fi uh-huh. li muy bi concerné wu Jean plainte bi may xaar te yaakaar naa Jean Michel dugal na ko moom directeur bi mooy plainte bi ñu war a jébbal Seydou Kane bi nga xamante ne moom mooy représentant wu EPC moom représente AEPAO EPC. EPC mooy espagnol bi moom mooy représentant te espagnol bi tuumaal ko dafa def faux et usage de faux. Mhm. maanaam dafa indi benn quittance su DGID boo xam ne baaxul. Mhm. indi benn facture boo xam ne DCMP DCMP lu bàyyi ko boo xam ne baaxul indiwaat beneen euh, facture boo xamante ne euh, mi ngi jóge ARCOP te baaxul. ñett yooyu yëpp mu indi ko te benn baaxu ci mën nañoo toppee foo et usage de faux te loolu directeur yi moo toog wax nit ñi dégg. kon ki jëfandikoo loolu tey jii war ngeen koo may marge de manœuvre mu wëlbati du toppaat ak di wut lu muy ñax toog ak leneen ak leneen warta mën a nekk. Mhm. man dama gën a plainte di am foofu la war a jóge te plainte boobu la ñuy xaar su fekkente ne Jean Michel déposé na ko ñuy xaar procureur daal di ci taxaw. su ko defee ñu xam véritablement lan moo ci lan moo ci am parce que euh, bëri na loo xamante ni ñii dañ ko ciy wax ak di ko nettali te dara amu ci. Mm. dafa wuute ak li nga xamante ne moo di non di ko politiser. Euh, jël doomu jàmbur bi di ko ŋawti ŋawti aj dafa jël euh, espagnol bi bàyyi doomu réew bi mm-hmm. te espagnol bi moom moo njëkk ne doomu réew bi liggéeyatuma ak yow parce que da maa présenté loo xam ne d'accord ma ci daa am njublang say mbir nañ ko teg na waaw léegi yéen lijjanti wala diggante ñaar ñooñu nga ne non moom lu tax muy dem liggéey ak espagnol bi léegi bien vrai que contrat bi tripartite lañ ko lañ ko signé woon mais euh, kële nga xamante ne mooy contractant bi. mooy AEPA e ou EPC. moom moo ci seppi ki mu ko joxoon moom moo ci seppi ki mu ko joxoon. waa mm-hmm. léegi nag loolu bu amee euh, yow li la war mooy nga fexe. Euh, nu mbir mi daal di jàppane te li gën a compliqué mbir mi mooy surfacturation yi ñu ci génnee. Mhm. donc boo amee surfacturation yoo xam ne génne ci tamit du doonati lu yomb ñëpp constaté ne lii am na ay écart yoo xam ne c'est inconcevable donc soo bëggee jël loolu lépp nga bëgg ko teg si benn nit ne non directeur bi la moo def nii moo def na le mhm. moo tax ma jàpp ne. il a l'obligation mu porter plainte ci faux yooyu nga xamante ne moom nee na gis na ko teer na document yi et bureau sax mën nañ ne daf ci rax ndax wax nga ko léegi ba ñuy signé nga xamante ne euh, moo di contrat bi fekk ci directeur bu mais itam espagnol bi nga xamante ne moo fi tegoon représentant moom moo dem ba peut-être amatul kóolute ci nga xamante ne moo di représentant mu daal di ko ci euh, seppi mais ñu jël coow li ba koo këpp ki nga xamante ne moo di directeur u bi waaw mais lool loolu la rek moo tax ma ne si bëri dañuy nga mm-hmm. tey jii sunu sunu presse bi tiréew ma si ñoom nag mais def si bëri ñoo xam ne fi ñu toll xam naa ne dañoo namm Macky nag namm nañ Macky parce tey boo gisee bi Macky waxee ni ñu tëbandoo yooyu ñëpp dawandoo gàddu Macky am Macky indil Macky. te indi journaux yëpp daanaka Macky daw si laa toogee man nag sama gars yi nag sama nañ eh, na mi boo xam te ne daanaka mën moo nekk sax moo war a nekk sax euh, primeur information bi moo war a ëpp solo mais daanaka off nañ ko wala xam naa ci biir lañ ko dugal. moo jël Macky def ko moo war a doon priorité. Mhm, moo gën a moo doon priorité waaye ñëpp daal di daw gàddu Macky Macky nee na nii ñi naan Macky nu mu Macky écrase façon bu ne tey gis nga ko Macky écrase Macky nangam ma ne Macky ray rek laa fa gisul tey de Macky ray Sonko rek laa fa gisul mhm. tey ji tellement que ni ñu xiife woon mbir mi de mais ça comprend.